ñoom dër bi daan nañu mën a jaay juróom-ñaar fukk ndax mën a génne seen engrais ak seeni produit avantage ci bu ñu demee ba ci kanam day jar ay fukk ak juróom-ñett 90 da ciy dem bii léegi waaw kon nag avantage bi moo doon ci depart bi ñu mën a jaay 200 wala 250 su ñu demee fii ak weer képp boo dikkee fii 90 nga fi fekk moom la ñuy jaay xam nga kon kooku <laughs> kii day daal di métti lool ci ñoom. baree na ci àll bi dañ ko ñemewul a andi man démbal ki démb laa fa jóge póotu waaw baree na fa trop ñemewuñ ko indi ndax procès bi. waaw borom milliard bu chargé vingt euh, cinq remorque Touba démb ak tey dix remorque ñëw na fi waaw léegi léegi dix remorque boo bëggee ba <laughs> nga chargé ca mbay ngeen daje fii ci matta bi nu muy mel ah da ngay dee rek yow miy gën a néew doole. importe baa ngi ñëw ba léegi geesul sa gannaaw jëlaaleel le jëlaale ko ma nga nee gis nga ko xool nga lii ci man importe baa ngi ñëw bee bu bees tàq la tey la ñëw ñaata otaa dugg ci dëkk bi tey importe bu bees tàq ah kenn xamul ñaata oto la bare na mu ngi jar tey 4 kilos 400 ci bascule ba ci saako bi. bi ngi jaar tey juróom fukk ak juróom xoolal boobu différence